bori tunga jege kombo yow man time nga ega kunting my thing I, after nine. After nine. Oh. This is serious, right? Yeah. Yeah, jage combo dipi two o'clock mungi melni from combo to Kunting yeah. like spend eight nine hours. Yeah. Yeah. Te yep ci Gambia. Yep ci Gambia. Yeah. Wan nañu seen ñu défaré yoon bi trop. you bi yoon bi bon na trop. Mm. Te li yaaga na yaaga na melni. Because this is not the first time man ma ñëw ci yoon bi. Okay. Yeah. This is my third time and yoon bi the same thing. war nañ ko war nañ ko liggéey gars soxla ñu fi nekk comme que ñu fi dëkkut sax dañ ñoo fiir sona bi sakatu ñu fi dëkk mm. nga xam everyday ñu ngi ñu ngi di seen yoon mm. war nañu seen ñoo dimbale gars yi dëgg dëgg jërëjëf kooku mooy Moustapha Kane yaa jërëjëf Moustapha sa rafet gis ko egga nañ nag Bansang pour jëlaat highway bi gis ngeen ko mbokk yi jërë ngeen jëf